lamba ja tas mbar ma dem ci soor bare yaa ngi bàkku bi samaani ku mën yeesal diine doon waaja tarqiya mbooloo ma tabax jumaa ji la yow atum ci doom ba saa na fu ama wasa sin taarix ba yaa ko tarxiyaal wooteem bu bi yaa ko yaal siggil nga mbooleem mbokk Cheikh Moustapha Mbàkke sigil nga mboolem bokk jikko yeneen ba ngay daloo koddam sa baay ba ngay soloo jaaraama njool amintaloo sigil nga ndaama kokki bàmbaala rang mayu teey waajal la jox ab liggéey yaa gàddu raayaw néegi seey wam mën nga doomi cedda yaa gàdduraa yow néegi seey wommat nga doomi cedda sa baay ba am na lëm bëggoon wam si yow la fi tegoon cax waaw waaw nee daa bëgg murid yëpp noppal la rek sëriñ bi nee na fexe ba xool Cheikh Moustapha Mohamed mu xool ñu rek waaw nan fexe ba xool ko mu xool ñu ab siyaara ngi noonu sëñ Abdourahim ñu njëkkante waxtu wi rek murid yi Cheikh Moustapha Fall moom sëñ Modou Aminta Fall moo ànd ak rakkam yëpp ci turu ji ñu sëñ Modou Aminta ji sëñ Falilou waaye nee na Cheikh Moustapha nee na ñun murid yi ñoo ngi lay ñaanal jàmm yal na nga am jàmm faw nee na ñu bari ñimewul la de ndax mbër moo xam ni da nga koo séen daanu nee na kooku doo songoog mukk ca am na ñoo xam ni dañ laa séen rek far daanu nee na sa jataay bii nee na li nga ci wone mooy nee danga bëgg rek gën a doon am murit nee na yu kawe yëpp nee na yu kawe yi sa ginnaaw yëpp yaa moom waaye bëgg doon am murit rek moo tax nga egg suuf def nii nga def Mbàkke nee koo xam ne nag bis bii la tax a jóg ku nekk nee bu nee jàkk sa jataay bii nee loolu doy na ko moom tey ci bis bi sëkk nag Cheikh Moudou safaa nee moom mii yilif mbooloo mi àndal si di sa turandoo wii waxoon na ñim bokkal moom mii ni leen mënumaa dem de da ngeen may demal Johelma ma addiye ji sëriñ Falilou Fall waaye nak samam xel nek ci yow Mbàkke ne mujj rek mun ko muñ C'est na djug rek ngir sëñ Falilou Fall la cheikh Falilou folie ci yow ak ni Fallou mel ci yow ak ni nga mel ci mom nit ñu bax ñi kenn ku bu fi yow daf la ameel bor boo xam ni da koy fay si nee ñim àndal nag bor bin la ameel ñoom nee na as lëf lañ ci dawal nee ku nekk ameel na la bor boo xam ni su la gisee ak bu la gisul man ko téye ci biirub xolam nee na ñu bari yaa leen tax am jàmm ginnaaw yàlla suñu mi leen bindoon la woo xam ne mbàkke boo ko yoroon nee ko lu bari dina dina yoon wi dina naqari it ñun yoon wi waaye mbàkke nga ñëw rek mel nii nga mel mbàkke balla nga xam ne ku la ku nekk su yoree njàqare njaqare la day deñ ndax sa melokaan wi nga mel bin la jiitalee ngay ñëw ñaari toogukaay yi sa ginnaaw ku nekk bëtama ngay xool ba xam boo ci toog mbàkke waaye nag ngay won sa maam ko li ma def la ëpp lii moo ëpp tey moo ëpp ëllëg lii lépp ak cant nga ko defe mbàkke nee na ka xar sëñ Tuubaa day kay kii xarab sëriñ Tuubaa bokkoo ci yow mbàkke ñii xarab sëriñ Tuubaa Cheikh Moustapha Mohamed bokku ci nee na jàmb sant yàlla boromam mi ngi nii nee na sa melokaan wii Cheikh Moudou Moustapha bégloo nga ñu baax ñëpp nee sa dund gi yàlla yàgg jërëjëf Mbàkke sa dund gi yàlla yàgg yàlla nga gën a wér rek yàlla nga gën a man sa lépp yàlla dooleeku ñaanal ko loolu ak murid yëpp wax leen amiin Cheikh Moustapha Mohamed mi ngi ñaan soppeem ñu baax ñëpp amiin jërëjëf Mbàkke Balla jërëjëf raayal jërëjëf raayal baax baax jërëjëf